na ba ñëw yéen murit yéen nuy si leen aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi aliyin azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli barke borom Tuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi noo ngi am mbégte di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu euh, jëw li ñu yoon wi di sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal yàlla sunu borom may ko fanu guddi gudd ànd ak wér yaram di nuyu ak a ziyaare mbooleem njabootuk sëriñ tubaa gépp di jagleel ab ziyaar nag sëriñ Abo Mohamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun di ko ñaanal yal na ko yàlla may fan wu gudd ànd ko wér kàttanal ko ba lépp luy yéeneem ci liggéeyal sëriñ tubaa <clears throat> jaare ko ci Daaru Salaam suñu boroom jàppale ko ba mu def ko di nuyu mbooleem buntu kër yi maam Cheikh yi bàyyi benn bàyyiwuñ benn buntu kër na ko tàmbalee ci kër Alaaji Serigne Tàkku Mbàkke jaar ci kër sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar jaar ci kër sëriñ Cheikh Coro jaar ci kër sëriñ daam jaar ci kër sëriñ saam jaar ci kër sëriñ ibra sucaam ñëw ci kër sëriñ mustafa caytu ñëw ci kër sëriñ Abdou Góora ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu ak a ziar di nuyu mbooleem buntu kër yi maam Cheikh yu jigéen yi la ko tàmbalee ca kër soxna Mbacke seex ba agsi ci buntu kër soxna Sooda bàyyiwuñ ci benn buntu kër <clears throat> di nuyu mbooleem seex si aju ci kër borom gaawaan di nuyu njabootug maam sëriñ Afia tàmbalee nuyoo boobu ci sëriñ Saaliwu mi nga xam ne mooy xalifa kër sëriñ Afia di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ànd ak wér di nuyu sëriñ Abdul Baax yi ak sëriñ Moustapha mu sëriñ Abdul Akaram ak mbooleem njaboot gi yépp di nuyu njabootu soxna Faati Anta gi tàmbalee ko ci njabootu sëñ moor faati ture ak mbooleem ñu nu jaboote di nuyu njabootuk maam Anta Ndiaye gépp bàyyiwun kenn ñu bëgg a ñëw rek tuuti ci fàttaliwaat ci taarix lenn ci liggéeyu soxna Anta Ndiaye Mbàkke laata ñuy ñëw ci Cheikh Sidil Mokhtar maam Cheikh maam Anta Ndiaye di soxna Astu Mbàkke soxna di doomi Ibrahima Awañang Ibrahima Awañang di doomi maam Maharam Mbàkke xam ngeen maam Maharam dafa am ab jigéen bu ñuy wax Atumaan Ñang astafurlah maam Maharam juram di soxna aram ñang day mbokkum buur ba jolof mu famoon ab jigéenam may ko maam wayjuru maam ma haram mu am ca doom ñu di ko wax Muhammad moom aram ñang waaye mu fab doomam mayaat ko maam ma haram mu di soxna awa ñang mu am ca soxna Mbàkke awañang ak astu Mbàkke awañang ak xari Mbàkke awañang ak Ibrahima awañang Ibrahima awañang nag moom lañu dénk soxna suñu wax kanni saw mu am ca Anta Njaay Mbàkke ak Ibra Kani ak ñañ bokkal Anta Ndiaye Mbacke moom lañ yóbbu kër sëñ Mbacke Mor Anta Sali mu di ab njëkk jigéenam ja xam ne moo jëkk ci këram mu am fa Faati Anta Mbacke Anta ak Cheikh Anta ak Afia Anta ak Anta Sali kon maam Anta maam gis ngeen ak njabootam gi nga xam ne moom la ko yàlla jox mu am ko ci kër sëñ Mbacke moor Anta Sali moom nag histoire nettali na lu bari ci ne li ko indi kër sëñ Mbacke Mor Anta Sali am na sëtam bu baax bu koy faral di wax mu di sëriñ Seex mu sëriñ Saaliwu yàlla na fi yàgg te wér nee na lépp lu am xol bu yaa ko ko may da doon jigéen ju njëkk ci kër sëñ Mor Anta Sali ngir wàcc si woon fi soxna. ba ngànt amee ca soxna sa moom mu wàcc fa di soxnaam te moom yàlla da ko defoon muy jigéen ju teel a bari barke te amoon daraja ku amoon taxawaay la te neexoon a xool rafet am daraja waaye am wërsëg bu yàlla dogalee muy ñëw kër sëñ Mbàkke moor Anta Sali wax nañ ne waajuram yabe woon na ko fanweeri fas te yàqalu ko la moomoon ci ak jur daan sàmm yàqalu ko it surga yam daan jël ci daan bay waaye kenn nattabliwul ne moom baykatu wëtteen la woon moom Anta Njaay Mbàkke daan daan ëcc ci biir wëttéen wi daf ko daan ëcc di ci génne garay ak fàllay di ci ràbbu ay sér di suub kon ku teel a créer entreprise la woon ca jamono jooju daan liggéey daan embauché ñu bari ñi daan ràbbu ay sër ñi daan ëcc ñi daan su dem ca mbandi suub ya di suub mu boole ko ak bay di sàmm suñ borom jox ko wërsëgu yaatu moom maam Anta Ndiaye mu bokk ak sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ci wàlluk baay Ibrahima Awañang mii baayam ak Mame ay sa mi jur Maam Mor Anta Sali ñoo bokk benn baay Ibrahima Awañang nekk ñaareelu xalifa kër maam maharam ci ma ci Mbàkke ginnaaw Ahmadou Soxna buso amut jeneen doomi maam maharam ju moomaat Mbàkke ndax ñoom ñëpp dañoo faatu ci moomeelu Ibrahima Awañang ba mu des maam Balaay sa caat mi Ibrahima Awañang yar ko taxawu ko ci léppam nag loolu nag nga xam ne Ibrahima Awañang moo ko moo ko yar soxna Anta Njaay Mbàkke di di di di di doomi Ibrahima Awañang bi yàlla dogalee maam Mor Anta Sali mii doomi maam Balla Aysa bëgg soxna daf na woon sama doomi ndey sama doomi baay ji te bokk man lépp moom lay wàcce la soxna si muy soxna Anta Ndiaye Mbacke te xam ngeen ne soxna Anta Ndiaye Mbacke soxna Asta Waalo lañ ko tuddee soxna Astu Mbacke soxna Asta Waalo Ahmadou soxna bu Bousso mi ko jur ak Ibrahima Awañang ñoo bokk benn baay kon da ngay xool ne ci wàllu bokk nañu demee ba noppi moo ko jàngal yar ko. soxna Anta doon ko gudd aw fan doon ko gudd aw fan lool sax nag eh, ndax bokk na ci ñi suut aw fan ginnaaw sëñ Touba bi sëñ Touba nekkee njaareem ñetteelu atam ci njaareem ci la soxna Anta Ndiaye wàcc ab liggéey ca gaawaan kon gudd na aw fan eh, loolu nag moo ko mayoon bi Maam Balla bi Mamoor Anta waree wàcce soxna sédde ko soxna Anta Ndiaye Mbàkke soxna Anta Ndiaye di ko toppatoo ca wàllu la mu ca war a def soxna sa am ngànt moom mu wax bokk mag ñi wax ak moom na ko sëñ Mbàkke Mor Anta Sali dey xam nga ni ngeen demee ci ak bokk baayam it xam nga ni mu deme woon ak sa baay soxnaam sii mu doon bëgg ngant da caa mu ne leen dey su fekkee ne ngànt la ci nekk alal a tax nañ ma ko wax ma joxe alal ja su fekkente ne bi nag laneen la mu mën a doon ca man araamuma ko naa fa dem nekkal ko fa loolu volontaire la loolu moo tax moom mu volontaire u génne alalam def ko ci ne nañ ko fasal sëñ moor Anta Sali mu nekk fa aawam mu tawloo fa nag Faati Anta soxna Faati Anta mooy wajuru sëñ Mor Faati ture ak ñam bokkal di juru soxna ture Touré mi juru sëriñ Seex jur soxna Xadi mu sëriñ Seex mu sëñ Saaliwu ak ñiñ bokkal ñëpp teg ci sëñ Mbàkke Anta ñaar ñi it xam ngeen ne ñoo doon taawub sëñ Mor Anta Sali ñoo mag sëñ Momar Jaara mu soog caa teg soxna maam Cheikh Anta teg mu soog caa teg soxna Anta teg ca maam Cheikh teg ci sëñ Afiya ñooñu ay mag lañ njabootam ay mag lañ waaye pour ñu mën a def référence ci soxna Anta Ndiaye Mbàkke da ngeen di jàngat tuuti. fi may wax ne moom fi la jaar ak ni mu bokkee ak sëñ Mor Anta ak li mu bi mu ñëwee ci kër sëñ Mor Anta daa bokk ci ñu yaatal kër gi ba lépp fekk ko fa mag ñi dañuy faral di wax ne moo fa jëkk waaye moo fa mujj njëkk ci kër ba noppi mujj fa nag am na lu koy waral mooy bi mu dikkee xam ne kër gi mu nekk daara la kër mu fekk si càmmiñam la dafa daal taxaw taxawaayu mu doon sëñ daara bu góor bi mu doon sëñ daara bu jigéen bi ñu bokk benn wàccuwaay ak benn yamuwaay ci daara ji sonante njaay yor ak juróom di ca rat di togg ay laax di jox sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ak di ko jox waa daara ji daara ji xumb lool bari mbooloo lool waaye suñ borom jox ko kàttan ak wërsëg mu daan ràbbu ay sër di ci ñawal sëñ Mor Anta Sali di ràbbu ay sër bu sedd jotee mu di ko séddale mag magu mbàkke ñi ak ñi mu bokkal kër gi di di di di di di di bay di sàmm di faj aajo yu baree baree bari ci ñim bokkal loole nag moo ko may bi demee ba daara ji xat mu waxtaan ak sëñ Mor ànt Sali ne ko dey daara ji dafa xat te li fi nekk ci lu baax benn loxo mënu koo ñedd ma bëggoon ñu jéem koo yaatal sëñ Mor Anta Sali ne ko ci gan wet mu ne ko dolli fi beneen nawle bu ma fi fekk ñu bokk liggéey bi mu ne ko xanaa yaa koy tànn ndax yow man yow laa defoon ngay sama jigéen bu may wàcceel soxna kon nag bokk yaa ngi noonu ku la ci doy doy na ma ci mu ne ko man de am naa doom joo xam ne xam naa ne ku ko indi fii te jàppale ko mën na fee jurlu àdduna bépp di dégg mu ne ko kooku mu ne ko mariyam ma moom soxna Aysatu Wàll ñu waxtaan ci ñoom ñaar ba déggoo soxna Asta Waalo soxna maam Anta Ndiaye Mbàkke ñu waxtaan ci ak soxna Asta Waalo mu ah, la Mariama ay fekkee ci kër ndax ndeyam nga mu ne ko daal kër ga la fa nekk ci lu baax dafa bari te benn loxo mënu koo dajale te moom mi xam naa ne day ku séq ak moom waar wu baax lu lu ngëneel mën na caa génn ñu waxtaan ci ba déggoo ñu indi soxna Mariama Bousso di way juru Seexuna Ahmadul Xadim mu fekk si soxna Anta Ndiaye Mbacke noonu la tamit bi kër gi demee ba war a dolliku it xam ngeen ne soxna Faati Isa maam soxna Anta Ndiaye Mbacke sëñ Mbacke Mor Anta Sali ñoo bokk lépp ak Ahmadou Soxna Bousso kii maamam mooy Ahmadou Soxna Bousso kee moom maam maamam mooy Maam Balla Aysa ñu bokk lépp seen ñaari ndey yi bokk ndey seen ñaari maam yi bokk maam. seen wayjur yi bokk lépp mu ne kon nañ ko indi ci kër gi kon gis ngeen ne kër gi ab jàmbur ñëwagu fi ñi fi ñëw ñëpp ñoo bokk lépp da ko tàmbalee ci soxna Anta Ndiaye soxna Mariama Bousso soxna Faati ñu nekk fa nag di liggéey liggéey bu métti ci jamonoy njëlbeenu Mbàkke jamonoy xuru Mbàkke ba ni dem Saalum liggéey bu métti ñu di ko fa liggéey soxna Anta ay taawam ganee àdduna Mbàkke maam Cheikh ak sëñ Afia ganee àdduna Saalum mu liggéey fa nag liggéey bu rëy ba liggéeyub Saalum ba jeex mu ànd ak sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ñëw Pataar Pataar fi la doomam ab taawam bu góor génnee àdduna muy sëñ Mbàkke Anta fekk na boobu moom it ñu joxoon ko mbokkam soxna ja Touré mi nga xam ne soxna Faati Balla moo ko jur maam Balla ay sa jur ko ñu bokk lépp moom lañ joxoon sëñ Mbàkke Anta waaye moom jotu ca am doom mu wàcc ab liggéey ca pataar ñu denc ko foofee ca njaañ ci kër sëriñ njaga jaañ yal na yàlla dolli ay leeram ñu fab ñu fab nag soxna ja jox ko Seexuna Ahmadul Xadim moo am ci soxna Faati Ja mi nga xam ne mook sëñ Mudu Maamun ñoo bokk lépp ndax Faati Balla fële la njëkk a dem lappe am fa soxna ja Touré dellusiwaat ñu yóbbu ko kër mbokkam Ibra Kani moo am fa soxna Fati Balla soxraa Fati Balla moomee gis ngeen ko ne moo meññi soxna Buri Mbàkke kon gis ngeen ne sëñ Tuubaa ba tey ci biiru bokkam rek la nekk soxna Anta Njaay nag foofee la jógee àndaat ak sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ñëwaat Mbàkke Kajoor ba ni sëriñ bi demee ci géej gi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali wàcc ab liggéey maam Cheikh Anta toxale ko nag Mbàkke Kajoor indi ko nag nekk moom daaru salaam ci sancub daaru salaam bi ba ni sëñ Tuubaa demee ci géej gi nag maam Cheikh Anta sanc ñaaxeen sanc euh, mu nekk ak moom ñaaxeen ba ni mu euh, ba ni sëñ jógee ci géej gi 1914 ba ni mu sancee gaawaan mu fekk mu mu dem gaawaan gaawaan googu nag ci sancub gaawaan ci la soxna Anta Ndiaye wàcce ab liggéey bi mu wàccee ab liggéey itam ci la Serigne waa wax ne lal bi nga la wax maam Cheikh Anta na ko lal bi nga ma fekke woon Gabon ma toogoon ca te bi nga ñëwee ma jóg na la lal bi rasulullahi moo ci toogoon na la yóbbu ko deqale yóbbu ko eh, de nga barkeeloo ko lal boobee anamu mu ne ko moom ca kaw lal boobee nag laa ko tëral ci la wàcce ab liggéey mu ne ko kon boole ko ak lal ba yóbbu ko ci sëriñam ba sëñ Mor Anta Sali nga denc ko fa moo tax Moussa Ka naan lal baa nga woon gaawaan ba sun maam Anta faatoo ñu teg ko ca mu mel na jant yóbbu ko deqale fa Mamor Anta robaale kook lal booba sow yi Anta moomee nag ñu yóbbu ko ca wetu Mamor Anta Sëli nga xam ne mboolem ñi jaar ci loxo yi sëñ Mor Anta Sëli la ko tàmbalee ci soxna jaara jaar ci soxna faat Isa jaar ci soxna Isa jaar ci soxna Coromaa Rosa jaar ci soxna Absa ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na fuñ la denc waaye nag moom soxna Anta Ndiaye Mbacke ma nga ca ginnaaw sëñ Mbacke moo doon Anta Sëli sës moom rek bokk ak moom benn nekk ca deqale loolu liggéey bu yàlla nangu moo koy maye. kon maam Anta Ndiaye wàcc na am na yaaram am ilimaan gàlliwuloo ci maaram yàlla na yàlla fayal maam Anta Ndiaye Mbacke fayal ñu ak njabootam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. borom daaru salaam dem na ba ñëw. yéen murit yéen nuy si leen